yàlla taal leen téléphone yi taal leen téléphone yi <laughs> mais yéen ci nappukaay bi man lan ngeen maam ci suuf fi mu toll nii ci suuf moom kenn du ci toog euh. kaw yéen xool ko eh, xam nga li xam gën bañ ngay def ah wax ju bari <laughs> voilà moo yi am jox leen bi yow wàcceel gaa jox ah. maar wàcceel am wàccal nga yóbbu lii yow. maas wàccal nga dem jox ñeemu korob yi. maas leen ko jox. Eh, allahu akbar tekk rek tekk rek tekk rek ndax mën nañoo tàccu. dégg nga bàyyi ma rek liggéey liggéey bi booy. Oh. nee na ko tëddal mu tëdd. la ilaha illallah jox leen ko micro bi Vem membros. Iya tax su ma demee ci gën bu ko te mi ngi fépp pour ñu ma koy bàyyi na ko ah capitaine sa waay jàppa jeex li ba ma ngay ngay bañ ngay yëf ya ah man a xoog moom xam naa bu ma asu yàlla sa jàmm yàgg Li, baal yee ko war di def chaque deux mois sax war di am nag ndax lii dafa bokk ci luy dundal lay lay la laa jaal yëg seen bopp mbonaat yëg seen bopp kaay yëg seen bopp pitax yëg seen bopp gin koy xa ba nim sax kul sonal borom su ma taxawoon fee sama yëre bu rëy bi ba xaj bi ma ciix wuy sama ndey doo nga ma ci mën a dimbali ah, waaw waaw wuy sama ndey ñu ngi ci banlieue yi nag gisuma leen mais ñu ngi mer bay bëgg a dee xaj yaa ngi nii da ngeen a mën a sàcc rek xaj yaa ngi yéen a ngi soobee yàlla sàcc si rek yéen def rek lu leen def doyu lu leer nga wax moo la am sàcc naa fii fonk na sa waay lay la sa loxo ba la téye de de da koo yow dawal dimbali ko ko bàyyi xaj bi jàpp na sàcc xaj bi jàpp na sàcc bi taxaw xaar ko bi daa ñëw ci kër gi ba pere bi na bi di xaar bu bu rëccee mu ko jàppaat na ko li yëg jàppaat na yuuxu na tàcc bi yuuxu na jàppaat na ko ba tey tëble nañu bàyyi na ko borom ñëw na borom bu suuflee rek xaj bi bàyyi yéen a gis xaj bi kot lay déglu xaj bee leen gën dàq moo leen gën a dégg kot de benn arme bu mu yore eh, song na borom xaj bi xaj bi mattaat na ko fii baa fa nga ko sax baaxul na ca pooj ba la ko waaw nous sommes ñu ñooy de sécurité Nous sommes nekk ci technopole Nous formé aussi un chalet comme conducteur de chien. Nous avons une entreprise qui a la assurer sécurité locale. Madame maanaam ñu partout au Sénégal Numéro de numéro téléphone.